wax taas boobu danga ma ci nekk muy ñeex mi leen ma <laughs> kii du ko tontu. tey ñu dalal Ibrahima Badiane Omar. monsieur Ibrahima Badiane sëñ bi Badiane ñu bàyyi la nga nuyoo balaa ñu dugg ci waxtaan bi di la ziar bu baax ci teewaay bi di la gërëm tamit ñu bisimilah ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. merci di nuyu Betty yàgg naa ko suivre suma xarit Sadio. parce que je crois que moom ci ñi ñuy bëggal rek homme politique yi di nuyu soxna si di nuyu également aussi sëñ bi <laughs> di la ziar bu baax tamit ah. ñëpp ñu ñuy seetaan daal. jërëjëf euh, di ko ziar di ko gërëm yàgg na fi teew des fois souvent di nekk jamono laa ëpp lu mu koy gis. waaw waaw ah, mu fay teew du fa kon euh, ñu koy gërëm bu baax a baax te sànq mu ngi ñu nettali kon yàgg na ak Walfadjri parce que 96 ak tey jii depuis <laughs> avant mi doon tax rajo moom am na yu mu ñu ci nettali sànq ci biti monsieur Badiane nag bokk ci ñi fare ci donkaasi gi ci nguur gi ñu door rek rek ak actualité bi mooy euh, li jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak président de la République génn gi mu ci mujj a génn ci France vingt 24 ak RFI way mm-hmm. ci RFI yëkkati ci ay kàddu est-ce que du kàddu yooyu mënoon na ñàkk ndaxte moo ne woon bu kenn wax euh, monsieur Badiane. Euh, euh, maa ngi leen di gërëm di leen sant je crois que fi nga fi nga fi nga fi nga fi nga jeexalee intervention président de la république RFI. Mm-hmm. d'abord li may njëkk a wax mooy am na question yoo xam ne journalistes occidentaux yi dañ ko faral di poser chef d'état sénégalais yi. Mm-hmm. que c'est pas normal parce que je crois que ci question bu demee nii. soo respecté ki ngay ki ngay ki nga jàkkaarloo je crois que war nga ko poser leneen lu dul lii. parce que ay question de détail la. Mm-hmm. et que nga sax bi muy tontu il était très gêné. Ouais. parce que man bi ma ñëwee fii j'ai également aussi j'ai bële c'est ça que j'avais dit on est tous gênés. par cette mm-hmm. affaire là. parce que kuy góor rek affaire bu gêné na la. Mm-hmm. et que des questions de mœurs ñu di ko teg sur la table ba yeneen réew yi di ci wax. alors que am na yeneen réew bi nga posé. je crois que bu la journaliste poser sa obligation mooy nga tontu ci. n'est-ce pas mooy li ma wax. mais est-ce que du lu muy jé lu muy jéggi di fi bàyyi ñu fi ne di dem foofu moo ko jur parce que ci affaire Khalifa ak Karim tam noonu la woon day gêné wu mais da ngay gis ñu koy acculé pour mu tontu for force. non non jéggul parce que émission bi amewul fii mën na fi amee fii club de la presse faut pas que nit yaakaar ne tout le temps tout le temps question yi ñu koy posé gars yi dañuy dem ba bitim. non moom demul on loolu on la c'est-à-dire c'est que voilà mm-hmm. yéen ngeen demander pour interview sur une affaire. dafa jaar. poser question peut-être mun na sax yàgg mun nga ko déposer mun nga déposer affaire pendant trois mois mais bi bi mu lay recevoir les questions d'actualité loolu ngay poser. est-ce que woon tontu ne c'est une affaire pendante devant la justice. comme la séparation de pouvoir mais bàyyi ma tontu bàyyi ma tontu xam nga posé nga ma question ba pare. Hmm. xam nga da ne est-ce wax. je dis que journaliste bu la posé question jaar na nga wax ci. Hmm. Euh, deuxièmement sénégalais yëpp également aussi dañ bëggoon mu wax ci. parce que moom lañ tuumal du gouvernement bi du état bi du keneen. dañ cité nommément Macky Sall. Mhm. et au delà de tout mais nit la te li koy wax également aussi da koy métti et puis lim tontu mais amul ci dara lu ci grave parce que def ne su ma ko doon def sax lool loolu li mu wax ci tubaab loolu la tekki su ma ko doon def du ma ko def ci cadre bu demee nii ak lu salte lii lu tuuti lii lu xeebu lii loolu la wax. Mhm. mais malheureusement li may dégg ci presse bi dafa mel ni woy def ne moom nangu na non nangu ko parce que def su ma ko doon def su doon dem ba di ko def. du ko def ci lii donc je crois que comme ni ma leen ko waxee rek ñun on est on est tous gênés. mais Ousmane Sonko qui persiste toujours que ne moo nekk ci ginnaaw lépp parce que dem na sax ba ne Macky Sall bu doon ni am na talent talent bi gën a rëy ci talent mooy talent complot ak nasaxal. mais il est libre c'est-à-dire loolu mënul leen ko kenn mënut a tëj gémmuñu Ousmane Sonko bu du ko wax. wax la rek wax la contre wax mais ñun fii muy jaar ne ñun jaar nañ fii on s'est opposé pendant combien d'années ak Abdoulaye Wade une opposition na wax moom wax la féetee na wax mais. entre la muy wax ak lii am mais sénégalais xam nañ ne mais lii amul complot parce que est-ce que moom dem na ci salon boobu est-ce que wéet na ak ndaw si oui ou pas am na ko porter plante mais na dem tontu ji devant la devant la justice loolu yoon yi kenn nekku ci sa à loolu constant la moom moo jógal boppam kenn forcé wu ko mu dem ci salon boobu ñu maase ko ka ko maase xam nañ ko ka ko maase ma porté plainte ñoom ñaari ñoo desoon ci biir amul ñetteel dégg nga ñu ne ñetteel bi ña benn beneen jeune fille bi keneen ki da ko puus ko piis ne ko génnal mu génn donc am na moment boo xam ne au moins moom nangu na ne wéet na xale bu jigéen bi léegi nag tuuma la mais na dem ci presse na dem ci justice bi te gi loolu complot nekku fa kenn mun te wax ne complot la kenn wax mun a wax ne du complot ni ndawam yi di saagaa nit ñi di leen traité de tous les noms d'oiseaux ku wax Pastef ku wax Ousmane Sonko dara ñu saaga la xas la mais peut-être ñeneen ñi également aussi bëgguñ nga laal seen leader boo laalee seen leader ils sont prêts à tout donc loolu nañ ko classé ci dynamique militant nañ ko classé ci registre militant mais ñu bañ ciy dugal nag léegi nag ñu naan ay chef d'état parce que vraiment chef d'état buy comploter lii ay détails la quoi vraiment pour pour pour pour pour daane un opposant maintenant nag mais cest à ñoom dañ tàmm a xeexee affaire yi mërs parce que yaa ngi dégg plainte yi ñu def ak ñi ñu jot a arrêté lan lañ leen wax atteinte aux bonnes mœurs am na image yoo xam ne kenn du ko weccee kenn du ko def cest booy xeex ak nit ki da ngay xeex ak moom vraiment de façon noble les ce qu'on les attaques euh, au bas de la ceinture nañ ko bàyyi di tudd loo xam ne ci nit da koy saltel bu ko nit ñu déggee dañ koy xeeb loolu baaxul c'est-à-dire kenn ku ci nekk ci ñun da nga ami mbokk kenn ku ci nekk da nga am famille. Mm-hmm. nañ éviter yenn yi. parce que moom am na loo xam ne xew na ci njabootam mbaa xew na ci moom bëggul nañu tudd ko keneen noonu keneen noonu keneen kenn ku ci nekk am nga mbóot boo xam ne ci nga toog bëggoo ko ko wax gis nga saaga koo saaga jàppal ne xamal na na loo xam ne bu la ko waxee àdduna tukki te mu mm-hmm. noppi donc je crois que loolu nañ bàyyi loolu c'est-à-dire loolu moo nar a yàq réew mi yi xalif yëpp wax nañ ci dégg nga euh, comment dire Ndiol mm-hmm. ba mu fa demee wax xam wax na ci loolu nañ bàyyi saaga yi waa avant élection yi wax nañ ko waa Ndiassane ñëpp koy wax cest à Sénégal politique Sénégal dafa mel ni boo xasee booy politique nit ñi dañu la war a détruire duñ wax ci yow lu baax duñ wax ci yow loo xam ne pratiquement dina tax nit ñi naw la duñ wax discuter programme duñ discuter lenn ay détails la ñuy discuter je crois que loolu amul njëriñ réew mi. li amoon njëriñ réew mi mooy nañ wax programme waxal nañu. loo xam ne merci monsieur Badiane Sandiogou. waaw jërëjëf kilifa gi ñu ngi rafetlu kii bi mais dama am ñaari euh, ko adressé ne waa kër Ousmane Sonko ñooy saaga est sa que mën na nekk waa APR yu mbubboo parti Ousmane Sonko saaga te fekk ne mën na bañ a nekk ñi nga xamante ni bi ñoo nekk ci mbir mi parce que loolu tamit aussi tamit day am par exemple nga gis ñoo xamante ni dañuy ñëw di saaga yenn yi wala def yenn yoo xamante bi nekkuñu ci biir parti bi c'est pour wane nit ñi ay saakar loolu mooy li nga xam ne mooy njëkk ñaareel bi bu fekkente ni bi mbir mi amul complot man gisaguma fu nga xamante ne bii papaay xale bi wala mbokk xale bi mais li may gis ni ma gisee nii ak ni ñu ñagee xale bi nii est-ce que tey bu fekkonte ni su citoyen bu ordinaire rek bu am jafe-jafe rek daal dee doxal est-ce que mbir mi dina doxee nii mu doxee ndax yow loolu sa xel nangu na ko ne yëf yi kon nii muy doxee nii nga xam ne kenn mënta gis Adji Sarr kenn xamul fu mu ne kenn xamul fu mu dugg mu mel ni dafa am ñenn ñoo xam ne bii ñoo ko est-ce que yaakaar nga ni bu doon sénégalais bu normal la rek benn sénégalais lambda comme ni ñu ko présenté ndaw si yëf yi dina demee nii euh, euh, fi nga mujjee fi nga mujjee laay njëkkee tontu avant may ñëw ci faux compte nga euh, lii ce n'est la fois damay ànd ak yow parce que dégg ngeen fi affaire xale bu jigéen boobu doon wëy ak kooku yoroon école duma tudd tur je mun nañ yem foofu presque ci benn cas la. c' exactement la même chose dégg ngeen fii kooku dem na sax ba ñu ko. dem na ba ñu ko dem na ba këram di tas. n' est ce mais ba lekk ci benn dynamique bi la rek. Ah. c' est à dire question de mœurs la. Ah. loolu laa la bëgg wax n' est donc euh, li ngay wax ci xale bi jigéen bi. Ah. mais xale bu jigéen bi ak euh, mbamb mi ko mi ko mi ko dar mais mëntu la feeñ parce que devient un enjeu pour l' de la vérité. c'est-à-dire moom pièce maîtresse la pour dëgg gi mun a feeñ mais ku demee noonu da nga koy protéger ñaata yoon nga fi dégg même opposition ñu leen di jox ay ay ay ay garde rapprochés ce n'est pas la première fois parce que état dafa am obligation pour protéger citoyens yi yëpp. mais teel na de. non non loolu lépp. non kenn non ku la moo la ne kan moo la ne ci guddi gi lañ ko protéger. xaaral xaaral ma xaaral ma ah, confirmer li saa wax xool <laughs> y'a un parce que nee nañ benn avocat mi ngi ci biir ah, am na benn fajkat bu nekkoon ci biir mais y'a un nom cité ah boo xam ne déglu nañ ko ci mooy Sidi Mouhamed mbay jarbaatu Maodo Malick Mbaye le gars là est-ce que moom anamu moom non yaa ngi supervisé yaa ngi yaa ngi superposé ñaari ñaari question bàyyil ma tontu kii ba pare après dinaa ñëw ci lële n'est-ce pas mm, mm. parce que ki dafay wax ne xale bu jigéen bi pour pourquoi feeñ nga ne le lendemain ba mu demee ba mu porté plainte rek lañ ko muur non amul c'est-à-dire bi coow lu jógee ba mu nekk maintenant un enjeu ba nit ñi manifester mu leer la ni kii bu feeñee mun nañ ko agressé mun nañ attenter à sa vie ainsi de suite ci la ci la commencé nëbbu et encore loolu avocats ñoom ñoo demandé ñoo bind ministère de l'intérieur pour mu am une protection rapprochée parce que sa vie était en danger et ça a été fait sur la base d'un dossier bu avocats déposé état bi tëbul rek. dem jël ko làq ko donc je crois loolu aussi il faut nekk ñu wax ko. beneen non non non bu ñu supervisé bàyyi xam nga xam nga wax nga ci faux compte bi xam xam nga xam nga posé nga pare da bàyyi ma ma ma ci. parce que ça ne ngay posé question yoo xam ne après soxla ma tontu ci. da wax ne est-ce que saaga yi nekkul waa APR mbaa waa mouvance présidentielle. non mën na nekk ku ne la waaw non non waaye mais question sous une autre mm-hmm. mais ñoom amuñu intérêt di saagawante di saaga seen bopp. parce que li ñuy wax saaga yi mooy la tax mouvement femmes yi au début kenn ñemu ci wax parce que boo ci waxee ci sa page parce que léegi lépp lu yéen lu ngeen def da ngeen koy dugal ci réseau yi mais commentaire yi am après dañ lay saaga saaga saaga saaga saaga ba nga xam ne yow ci sa bopp boo defatee émission da ngay ragal sax dem di ubbi pour xool ñaata view nga am ñaata nit ñoo la apprécier ak lan la lan la ci nit wax. parce que boo demee ay saaga nga fay fekk mais loolu waa majorité amuñ ci intérêt parce que nit mbaa yow nga dem def émission ba pare wëlbatiku di saaga sa bopp ça n'a pas de donc je crois que loolu ñëpp dénoncé nañ ko il faudrait que fii nii yéen itam ngeen dénoncé loolu parce que terrorisme la c'est-à-dire soo waxee mbaa bu ñu waxee ci yow nga agressé nit ñi cela veut dire que da nga bëgg kenn dootu waxati ci yow lépp loo mënta def itam ñu ne ko ñëpp ne muut mais loolu baaxul donc beneen bi mooy li kii posé euh, euh, avocat bi ñu ci tudd ak médecin bi ñu ci tudd ak xale bu góor boobu ñu tudd mais kooku nijaayam def na wax na démb wax na wax na barki démb ci benn ci benn ci benn télé wax na dimanche ci benn tele expliqué nag kooku làquwul demul fenn xam nañ fa mu nekk su wax dëgg gi jotee dina génn wax dëgg gi sa lan moo lan moo lan moo ci soxal nit ñi ce n'est pas ngi ñu gis waa ji mu ngi dox waajaa nga ne le ou bien ndaw sàng ne le non xam nga lan moo ci am solo mooy bés bu processus bi yeggee bu dara desul lu dul ñu wax dëgg gi que ñooñu ñëpp. ñu war a mun a génn dem devant la justice wax li nga xam ne moom lañ fekkee avocat ñële avocat Ousmane Sonko yi posé question yi bépp question bu ñu bëgg a posé avocat majorité bi posé également aussi ba avocat je vous dis quoi avocat avocat ñeneen ñi avocat ñi ñu mhm. nest pas avocat ñi accusé ñoom itam ñu mun a jël parole défendre mais le juge jugé sur la base de l'intime conviction parce que bëggoon naa nga dimbali ma ci leer béti maa ngi ñëw ba ba léegi ndax yow sa xel mën na nangul ku la violé violé waat la ku ñu violé ñeenti yoon trop quatrième fois bi ñu ngi la envoyé message pour ñëw di la violé loolu yow sax xel mën na ko nam ah. que ni li nga xamante ni moom lañ bindu quoi ne yëf yi noonu la demee loolu yow est-ce xam nga xam nga xam nga am nga saa waaw yàgg nga fi dégg xale bu jigéen génn def témoignage ci presse bi ne suma waajur mbaa suma xariti waajur daf ma doon tëddee tant de fois ba ma amee tant de at boobu di may am temps de at. waaw non mais non non non non non je termine non non non non je termine non non non je termine non non non je termine mais mais mais xam nga li ngay xool mooy dafay liggéey. waaw ah, mais ki day yor fetal yor ñaari fetal di ko limee waaw mais waaw mais may da nga posé question da nga may bàyyi mu tontu <laughs> voilà la meñ du lekk morom ki te ñorul ah ça. <laughs> alors donc xam nga yàgg nga fi dégg loolu ñu ne. daan na ma ko def daan na ma ko def daan na ma ko def ba mujj gi dama daw. xam nga loolu am nga loolu yàgg nga ko dégg. mais pourtant bu leen mënoon na bañ ko ko defee benn yoon mu génn dem wax ko maamam da ngay dégg ñu ne ba ma ko waxee dama ragaloon ma ba ma ko waxee ba ma ko ma ko defee dama ragaloon ñàkk suma place parce que loolu yëpp a ci c'est-à-dire c'est le risque cest nit ñi dañuy ñëpp bokkuñ comportement face à un certain risque de sorte que man du ma douter du man may douter dès l'instant que ñoom moom porté na plainte dossier bi mu ngi pendant devant la justice nañ jàpp ne allah kulli alin dëgg gi dina feeñ jarul yàkkamti xam nga sàcc bu du raw jarul jarul jarul yàqi ndelaw xam nga li ñu lay wax ñu ne la nag bi bu bër setee ñu rendi ko jarul ngay fajaru naan da ngay dem ni netti béjjën netti béjjën yi da ngay bàyyi ba ñu rendi ko andil la bopp bi jërëjëf donc je crois que man fi mu chuté man depuis toujours loolu laa wax yàlla na suñu borom feeñal dëkk wax dëgg yàlla te ku ciy wax rek wax ci ak sa aqulay taala moo xam ñi nekk féetee ci ñi nu moo xam ñi accusé donc euh, ku ciy wax rek wax ci sa aqulay taala yàlla na dëgg éclaté bu dul yàgg dara mais man li may laaj mooy euh, euh, président de la république d'après ci li ñu dégg dafa waxoon ay partisans alliés bu ci kenn wax defe naa loolu la woon mais depuis un certain temps gis nañ ni ñu ngi wax ci plateau yi ñu ngi ciy wax ak yépp est dafa wax ni mën nañ ci wax léegi mën nañ ci communiquer wala lan la. xam nga xam xam nga man gis nga damay wax ah, parce que ñoom ñëpp ñu may suivre certainement dañ may mhm. suivre parce que man ba coow loolu jógee ñu ne président nee bu ci wax. Mhm. dama ne tel que je connais président loolu du waxam parce que am na détails yoo xam ne Macky Sall du ci dugg. man xam naa ko c'est-à-dire wax suma akulaay taay mais je l'ai dit dans groupe bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ci bokk am na ñoo xam ne d'accord ñoon ci li ma wax parce que dañ ne suñ demee boo wax ko c'est parce moo ko wax non man nit ki da koy xam xam nga tey yow am na koo xam ne yaa ngi ànd ak moom suñ ne béti moo wax lii moom mun na taxaw ne béti du wax lii lii du waxam te président Macky Sall dugg ci lii nii du yëfam certainement peut-être am na ñoo xam ne di jàpp ne non non non affaire bi dafa sensible faut pas que ñu wax ci parce que bu ñu ko waxee nangam sangam nangam man ba ma ñëwee fii émission boobu boobu kenn waxagu ci bi ma ñëwee fii émission di ci wax ak imam boobu. boobu ñu bëri waxuñ ci woon te j'ai pris mes responsabilités en tant que leader ñëw wax ci. ñeneen ñu ngi ci parce que boo waxul mais ñoom ñu ngi wax. mais mais est-ce que yaakaaroon ni amoon nañ yeneen priorité yoo xamante ni moo waroon na ñu teg coow li ne bàyyi ko justice lu demee ni vaccin bi lu demee ni corona bi lu demee ni suñu économie bi nga xamante ni dafa nërmeelu est-ce que priorité yi nekk loon foofu mais mais mais ànd naag yow d'autant plus que même ñun affaire daf ñu desservir parce que bi président di recevoir mouvement ak engouement bi war na am amul parce que information bi dañ ko diluer c'est-à-dire on a mhm. été piraté voilà c'est-à-dire dafa atténuer lépp et lépp lu ñuy def dans ce cadre la mm. affaire bii da ko atténuer c'est comme un cheveu dans la dans la dans la soupe mhm. c'est-à-dire c'est que c'est ku la ne amul impact am na impact mais ci li ñuy wax yooni Macky Sall nekku ci loolu man mun naa la ko wax te mun naa ko affirmer fu nekk waxul kenn bu ci wax c'est-à-dire militants yi ñooy jël seen responsabilité en un moment donné buñ saagaa seen leader ñu tontu buñ waxee seen leader dara ñu tontu di ko défendre c'est normal c'est-à-dire ni xale yi Pastef fi di défendre ñun itam noonu la suñu xale yi défendre mais seulement façon bi moo nekkul benn ñee dañuy saaga amul mag bu nekk seen wet pour war leen mën a wax ne arrêté leen parce que parti xale la daanaka ñu bëri ñu fa nekk man maa leen mag c'est différent que yeneen cadre yi nga xam ne boo waxee ku demee ni que Moussa Niass mën na la oo ne la moytu lii moytu lii moytu moytu lële. mais justement parce que parce que parce que parce que lim la. mais mais non. <laughs> mais monsieur mais monsieur mais monsieur Badiane. non non xaaral d'abord monsieur Badiane. attendez d'abord daa am waaw jawwal bismillah. attendez d'abord que je termine avec elle. xam nga li nga wax. l'essentiel ñun fi ñu toll nii li war a préoccuper sénégalais. Mhm. Ah. nekkul fi di wax affaire yi Touba yi. di wax ay affaires yi mërs. nañ wax affaire yi économique. wax lu ñuy def ba mbas mi ñu mun ci génn Sénégal génn ci ak le moyen de dégâts kenn mënu ci génn nag sans dégâts dégâts yi moom am na ba pare. jéem a dindi campagne d'intox bi nga xam ne moo jiitu. moo euh, jiitu justement c'est-à-dire vaccin yi que loolu parce que li am solo mooy sauver sénégalais yi mais di wax ci détail bii. parce que mënut a jëmale sénégalais yi mais mais détail bi mais détail bi daa am boo leen bëggoon mu jeex mu jeex. ci naka parce que boo xoolee ba mbir mi tàmbalee ba e- fi mu egg tey doon ngeen dàq politique yi mais tey ji politique bi moom dugg ngeen ci bu baax parce que comportement bu assemblée nationale ak fa fast track bi ñu bëgg a doxalee affaire yi di violer ay procédure waxuma la violer ay procédure mais doo mel ay chômeurs yu jox liggéey parce que assemblée gëj nañ liggéey ku ne di bëgg a rey boppam parce que comme si dafa am un homme à bu ñu bëgg rey est-ce que ak yenn nit vague d'arrestation yu tàmbale di am maanaam réew mi boo leen bëggoon mu dal mu dal. mais ni ngeen di doxalee dalalul réew mi parce que ñi ngi jàpp nit ñi assemblée bi ñi ngi def comme ni leen yàgg xamee noonu bu Macky tër ñoom ñu rendi ko est-ce que jotul nag ñu nguur gi soppi doxalinam ku toog ne bëgg naa rek xalifa Karim tey Sonko la mais bu réew mi waree dal rek pour man fu dëgg amul jàmm du fa am na nguur gi di doxal dëgg rek jàmm na am ci réew mi. est-ce que hmm. di fa mën a toog parce que li nga wax yëpp tu parles comme eux. waaw parce que j'assume. non non non non ce n'est pas ce n'est pas une affaire d'assumer. Hmm? mais dama la bëgg a wax ne gis nga am na yu bëri yoo wax. Hmm? parce que da ne hmm? fast track. du fast track c'est la procédure moo mel noonu. quelle procédure. non procédure lever une immunité parlementaire da ngay lire article cinquante et un ak cinquante deux règlement intérieur assemblée nationale. lan la wax. su ma su ngeen amee jot mun naa leen ko liiral. non non non non non. voilà donc euh, c' est c' est ça bind naa ko yëpp mu ngi nii parce que xamoon naa di nga métti posé. on n' a pas ni muy doxee nii est ce que eggoo leen ah, ci pour li leen bi est ce que nekkul ni ci ngeen ne loolu sa gis-gis la yooyu yaa ko tuddee politisation c' à dire du politisation loolu c' ça la procédure normal mhm. du fast track. c' est à dire c' la justice bi bokk ci nekk un pouvoir à part. Mhm. am beneen pouvoir bu ñu adressé wu ñooñu ñoo bind assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire mmh. de autosaisine c'est différent de ce qui est euh, énuméré au niveau de l'article 34 ak article deux concernant les commissions spéciales mmh. du benn mmh. bi lépp nu ñuy def fu ñuy jaar procédure bi c'est écrit amul jurisprudence parce que ce n'est pas la première fois ñu lever beneen bi dañ ne euh, arrestation tout azimut yi c'est-à-dire la la police di def gendarmerie di ko def armée di ko def ñoom dañ ko yàgg def tàmm koo def ce n'est pas que régime moo leen def leen kenn ku ci nekk li nga war a def xam nga ko yan nii ah, ah. émission yi ni ngeen non je termine émission ngeen di créer hmm. émission yi ngeen di animer est-ce que dañ ngay dañ leen di oo ne leen dem leen ngeen animer animer par force mais on vous laisse ak seeni initiative conformément à la loi et au règlement bii régir fii ngeen di animer ay émission c'est exactement la même chose la police la gendarmerie ñoom ñoo xam yan procédure lañ war a déclencher su fekkee gis nañ tel ou tel euh, tel autre fait mënuñ permettre nag benn citoyen sénégalais ngay dem di saaga nit ñi di diffuser des images obscènes ñu di la dog di seetaan la constitution euh, protège l'individu on a dit que la personne humaine et sacrée son image est sacrée yow amuñ droit di jël sa image di ko dugal ci yeneen cadre ñaata yoon nga fi dégg nit porter plainte parce que dafa am ku jël ay image am capturé ko di ko chanteloo ñu dem porter plainte dik mbaa dem porter plainte gendarmerie ñuy poursuivre nit ñi di leen arrêté des gens qui rien à avec avec la politique ñaata yoon nga ko fi dégg ñaata yoon nga fi dégg ñu naan la ko ci baar gaa yaa ngi koy poursuivre gaa yaa ngi koy def nangam sangam nangam booy fermer ay site est-ce que loolu yoonu ci nekk cest à nañuy def ñooñu nag yi def la ku def la même chose mais également aussi la loi va s'abattre on n'a euh, pas besoin de demander à la à la justice de s'autosaisir ou bien de faire quoi que ce la nga nga tàggatoo ni nga wax dëgg la waaye bu doon nii waa APR bu ñu ko defee tamit yar wi dal leen ñu mën ci gën a ànd mais waa APR duñ ko def non waa waa APR ko def waa APR dañ leen ko def Siselo ak yaa xam ne seen saaga yaa ngi fi tellement de mais ça hache de guerre. c'est différent de ki nga xam ne dafa porter plainte demande que la lumière soit faite. Mhm. kii retiré wul sa plainte. c'est-à-dire xam ak Moustapha Cissé Lo mus yaa xam nga dégg mu ne Moustapha Cissé Lo suma grand la baal naa ko lépp lu nekkoon suñu diggante jeex na mais c'est fini et puis loolu ci benn ci benn ci benn partie bi la mais c'est différent ak lële. voilà donc je crois que faut pas que mu am amalgame nañu éviter nañu éviter yenn yi donc maa leen di gërëm di leen sant vraiment ci émission bi quoi merci beaucoup merci Badiana UFN moo ko jiite Union des forces nouvelles membre de la conférence